la ca Sénégal def bëri na waaye ñaare gisuñu jeexital bi ñu fexe ba am ay charte yu ñuy teg ba képp kuñ koy jox rek mu leer ni ku ko yelloo la ku ko war a am la rawatina nag mu gën a gaawal séddale matériel agricole boobu fële ci di du fleuve Sénégal nga xam ne potentiel bi fa am ci wàllum mbayum ceeb ba ci wàllu maraîchage potentiel bu am solo la ñu wax ko tamit ni am na ay programme yu fi am programme yooyu ay milliards yu milliards dugg na ci ñu waroon ci def loo xam ne dafa jëm ci jënd matériel agricole ak def ay magasin de stockage ndax mbayum Sénégal bokk na ci li ñu gën a sonal mooy stockage amuñu capacité stockage liy yàqu ci mbay mi bëri na ak li nga xam ne ci wàllu ay euh, chambre froide la ba léegi day dugg ci stockage bi muy programme Intermac ak Sismar jox nañ ko ci ndigal ñu def li ñuy wax audit ci tubaab mooy ñu saytu ko ba xam mbir mi naka lañ ko jëfandikoo jëfandikoo ak fan la dugg ci li jëm ci séddale bi ba léegi jox nañ ko ndigal mu ànd ceeg jëwriñ bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci coopérative ak encadrement paysan ak ki nga xam ne moo yor l'armée bi ñu taxawal ay commission yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo lépp lu jëm ci joxe intrant yi lënkaloo ci ak jëwriñ ñi nekk ci région yeeg département yi muy les autorités administratives waaye ñu gaawal ko ba gën saa gudd le 13 mai bi ñu ne lañ ci war a def def nañ ko ñu jox ko it ndigal pour mu taxawal ay charte waxoon nañ ko léegi yoo xam ne lépp loo xam ne lu jaaduwut la ci ni ñuy séddale dañ ko teelal gis war koo mun a jubbanti ñu wax ko it mu xool ay euh, pexe yoo xam ne ñi nga xam ne dañ leen di jox subvention yi ñu mun koo def ci ay liste liste yooyu ñu xamal ko Sénégalais yépp ba kenn ku nekk xam ni fi mbir mi war a dem fa la dem ñi ngi ko war a jox yépp jox nañ leen ko te amul kenn koo xam ne yellowul ko te jox nañ la ko bu ko defee subvention bi dina yegg ci baykat bi waaye du doon loo xam ne day nekk ci yeneen loxo ay nit di ko récupérer di ko jaayaat wala di ko di ko génne réew mi li nga xam ne nag mooy ndeyu mbil mi ndax ko wax mbay wax kap koppar wax xaalis li nga xam ne nag moo war a fexe ba ñu dajale mooy yooyu nga xam ne mooy moyens financiers yooyu nga xam ne moo ñu war a yombalal liggéey bi jox nañu ndigal ministre bi nga xam ne moo yor finance ak budget pour mu jël matuwaay yépp ànd ceeg mi jëwriñ bi nga xam ne moo yor mbirum mbay mi ñii nga xam ne ñoo yëngatu ci financement campagne agricole bi mu mun leen dajale ñoom ñëpp ñu waxtaan ci kenn ku nekk lan nga ci war a mën a def te kenn ku nekk ñuy xaar ci moom effort boo xam ne effort bu particulier ci exercice 2024 bi jox nañ ko ndigal it budget 2024 bi mu dugal ci li nga xam ne moom la ñu annoncé ni moom mooy budget campagne bi muy cent 120 milliards yi nga xam ne ci ndigalu président la république moom la ñu jàpp dugal ci campagne ren bi ñu mu mel ni yokk nañ ci vingt milliards boo ko nattee campagne ñu daaw bi nga xam ne cent milliards la woon. ci li jëm nag ci moyen logistique mooy jumtukaay yi ak nuñ koy jëfandik nuñ koy utiliser ba ñëpp mun cee euh, jot jox nañu ndigal jëwriñ bi nga xam ne moo yor mbirum mbay mi pour que. li ñuy wax au niveau local mooy ci base bi ci village yi ci communes yi ci département yi ñu gën a def coordination certainement jaare ko ci coopérative yi ba nit ñi mun a dajale moyens gën koo mun a utiliser de manière rationnelle lii ñu wax nii yépp nag mu mu bañ a doon rek discours ak ay dossiers yoo xam ne ay rapports yoo xam dañ koy dugal ci tiroir moo tax ñu jox ndigal euh, ministre secrétaire général du gouvernement Nous avons coordonné sous la supervision du premier ministre l'action du gouvernement nous saytu liñ fi wax yépp ci ay rapport régulièrement ñu xam fan la ñu toll application